waaw ñu ngi leen di fay soxna si. tur bi naka la. tur bi la. Moustapha lan nga ci Ahmadou mi nga xam ne moo fi daal di bàyyee ko. yee parce que booy bi suñ booy la ñu bokk doon dëkkandoo bokk yëmbal. Mhm. xam nga rek. gannaaw la jaalee ma saw la aussi ci tiis bi nga xam ne moo daal ci seen kaw yan information rek nga ñu mën a jox ci li nga xam ne moom moo fi xew. waa information yi fi xew lenn la rek. Mhm. parce que ñun démb ñun ñoo ci nekk affaire bi ba mu amee ba tey ñu ñoo ci ne di dox. Mhm. voilà maire tey balaa avant mu fiy teg tànkam bàyyi na ba ay minuit en tant que maire ta nga yor sa commune te tey yow loo xewle sa waa commune a ciy jiitu mhm. kon tey lu mënti am sa commune nga war a jàppale seen naqar sa naqar la war a doon mais tey maire boo xam ne bàyyi nga ba benn heure bi moom ñëwul daa yónnee ki mu yónnee ay une la fi ñëw mhm. une heure du matin mhm. ki mu yónnee bi mu ñëwee lan la wax maire daa am lu ko téye ñu ñoo ne ko toogal ñun dinañ ko gérer kon tey maanaam ñoom kay la meer ne moo leen ñor tey bakkan ñoru leen mm-hmm. voilà ñun ci foofu la ñuy waxee quoi tey par exemple ñun booy bi fii amuñu ñu ko mën a taxaw mm-hmm. tey moom bu bëggoon booy jot seen koor mm-hmm. dinañ si taxaw ñun booy jot seen koor ñu yóbbu ko Touba dem ñaanal ko mu jeex ko mais tey ñoom dañu taxaw benn instant ndës gisuñu leen teewuñu tey ci suba gi nii seen témoignage waroon na leen tey fajar gi ñoom la fi waroon waroon na leen fay fekk ñoom ñu dalal xelu gaay quoi tey dëgg la koor pour nga jot si du yomb mais tamit tey ñoom ñoo ci mën a taxaw mhm. dëfal gars parce que ëtëb si faaw ñu def ko moom ak nu mënti demee loolu lu fi wàcc la fa force la mhm. nit bu deewee ko ëtëb ko hôpital ëtëb si xool lu ko mhm. ak ah, ñun foofu la ñuy fii neexul kenn ku sañoon tey du am du demee nii waxuñu nag maire moo dogal lii yàlla mooy dogal parce que ku nekk sa bisu dee suñ borom dogal na ko avant ngay judd fa ngay dee suñ borom def na ko mais tey luy seen témoignage ñoom mënoon nañoo ñëw taxaw rafetal quoi ñun la ñuy waxee ñoom lii seen rôle la parce que affaire bu ñàkk fayda bi rey booy bi du tey du booy bi kese la ko fa def def na ko multi personne dal na leen fa du c'est la première fois mu am fa maas fa ba booy bi ñëw fa am na booy yu fa mais tey ñu xam loolu pourquoi dinduñ ko ñu ñëw naan ay maire dindi na affaire bi mais maire na affaire bi un di ko pourquoi affaire bi muy rombaat fa affaire bi di amaat mais pourquoi demul dindiwaat loolu waxul lan moo defaat li mais dañuy bàyyi ba dara am ñuy doog ñëw di ko responsabilité bu wóor moom tamit da cee a dox parce que gars yi ñu sàcc courant bi courant bi néew normal sama téléphone bu ñëwoon moom wala gars yi niñ dóoree bi mhm. fët fët balaa média yi di ñëw ko yee ñun nag loolu ñu métti quoi ñun loolu la ñuy wax waxewuñu ay baaragay moo rey moo rey mais dafa war a ñëw taxaw assister mhm. parce que fii la mhm. ko fi daa gis bu affaire yi amee ko fi daa gis pas bu soxlaa day ñëw fii voilà bi mu fii ñëw fii ñu fekk mu fi kon tamit bu lii amee moom waroon naa teew voilà boo bi ndaw la bamba liggéey lañ ko xamee ñun ci koñ man sama gaañal la fu ma romb tafaa la may wax dem yoonam naa fii la dëkk gàlle bi voilà ñun jaamu lañ siq ak moom jaamu jiñ siq ak moom moo tax moom la ñu continuer mu nekk na ñu ngi koy ñaanal suñ borom xaari ko àjjana ci barke yonente bi démb ay 16 heures 14 yooyu noonu ko ay yooyu noonu la jotaguñ ci koor bi ñu ngi xaar tey gars yi pare woon nañ pour dem Touba ba gaari oto yi ah, yaakaar bi dina ñëw oto yi dañ a mujj ravay waat ñu dem nee nañ suba dinañ si jot mhm. suba ñi ngi xaar ba xam diñu jot suba buñ si jotul tamit mhm. dinañ wàcc ci terrain bi yëngal bañ ñu ci ñaar dërëm mhm. man sama waxu tey mooy sama man pare naa pour tout barki alxuraan parce que sama bakkan bu ko laajee koy def parce que boot booy lépp luñ bëgg barki Serigne Babacar booy bu ma woo ni ma tafaa nañ dem ma ànd ak ñoom dem ragalu dara noonu mel nag loolu laa am ci bi maa lay nuyu maa a Ahmadou mi nga xam ne moo fi daal di bàyyeekoo. waaw Ahmadou wax dëgg yàlla sunu booy la nekkan ci koñ bi di fi liggéeyee jóge Touba man boo xoolee barki dem ci guddi ci samedi bi ay deux heures matin ma ak ñoom ñoo toog ba tëddi jot ndax ma dama dugg ci kër gi mu xaw tàng ma ne xaaram dem ci booy waxtaan ak ñoom bi ma jógee ci laa tëddi bi ma tëddi jee ci suba gi ci laa génn bi ma génnee vers ay ay ay ay ay ay 16 heures yooyu ci laa retourné ñëw fekk affaire bi am mais wax dëgg yàlla mu nekk affaire bu désolant affaire bu triste mais man fi may focaliser wu. du ma wax ci jëmm ji. ak baaxaay ak nangoo liggéeyam. Mm-hmm. mais man damay interpeller état laay interpeller ndax boo xoolee euh, Sénélec mm-hmm. sous-traitance bi nga xam ni moo ngi koy commencé di ko sous yenn entreprise yi nga xam ne amuñu ay agrément mm-hmm. amuñu benn qualification amuñu benn expertise lu ci mel ne ay ASER ay ANER ñu leen di jël ay marché di leen ko sous-traité ndax boo xoolee liggéey bu bon yi am ci banlieue yëpp entreprise sous traitant yi ñoo koy def mhm. Senelec bu njëkk da daan wàcc ci terrain bi mhm. nawet bu jotee day def entretien mhm. surtout inondation ak jamono yi nga xam ne fii dafa xat boo xoolee fii li fii nga xam ni amul benn organisation léegi nag ñoom li leen war defuñu ko foofu li def mooy interpeller nga xam ne mooy ministre chargé de l'énergie muy Birame Souleye Diop ak premier ministre Ousmane Sonko ndax ñun ñii dañ doon xeex ngir ñoom lii rek la doon xeex lu mel nii maanaam jafe-jafe askan bi pour mu saafaraw ñun voté wu ñu ngir intérêt voté wu ñu ngir xaalis da doon wàcc terrain bi di xeex ba léegi nii tey lañ gën mën a xeex bu campagne jotee dañuy wàcc campagne at mm. mais mënuñu concevoir mm-hmm. ñun banlieue bi mm-hmm. ñu bëgg ñoo def maanaam ay nit yoo xam ne nit yu désintéressé lañ mm-hmm. problème boo dégg banlieue bi lay am agression banlieue bi lay am coow banlieue bi lay am inondation banlieue bi lay am mais loolu dafa war a jeex une fois pour tous beneen bi mooy Sénégal dafa am leen loo xam ne dafay am muy médecin après la mort fii doomu aadama génnul àdduna solution du am gisoo fii ñu fiy nekk jamono yëpp man dama doon dégg booy naan fii courant bi day marché day marché ndax man chaque chaque chaque chaque guddi su ma amee temps damay dem foofu noonu foofu laay entraîné yàlla moo dogal ndax répp ma da ngay dem da ngay wuyji booy bi nga xam ne moo gën a ñun dañ koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ndax métti na lool mais après après bi mhm. dafa am lu ko jiitu entretien mhm. électrification bi nekk ci zone bi mhm. dañ ko war a def ndax ñun suñu ginnaaw fii nii poto ba fa nekk day marché te depuis très longtemps ñoo ngi koy alerté mais ñun bu ñu jëlee ay nit def leen ay conseil à mairie def leen ay délégué quartier wala chef de quartier ñun jàpp na ni bu ñu leen lii da am ci koñ bi te lii mën na jël ay bakkan ñoom ñoo war a jiitu ñoom pour bind benn notification adressé ko maire ñu yóbbu ko Senelec ñu ñëw régler problème bi mais duñ ko def li gën a mën mooy nit ki dee ñu dem indi xaalis indi corps bi yaa yàkkamti nga dem suuli ji ko dëjël ko loolu moo far jeex gis nga ñun soxlaatun bu ñu dee nit ki boo koy dimbali ci bu mu génn avant muy génn àdduna nga koy dimbali mais doo bàyyi ba xale bu ndaw xale bu am jom mm-hmm. gëm boppam nangoo liggéey mm-hmm. non am na loo xam ne sax kon lii lépp mën naa ne buñ ci taxaw woon xëy mu yegg non buñ ci taxaw du agsi doo dem mais dama ni mm-hmm. yàlla mën na lu ne waaye taxul mu def lu ne dee goo gis rek sababu doom aadama mu ngi ci biir ndax courant boo xam ne tey ji maanaam fil gi dañ kaa dagg jubluñu ci lenn bu événement amee ñuy capp di ko direct pour mën am am am am courant léegi suñu paree ci loolu dana war a wut boîte mhm. bu ñu war a wutee boîte def ko ci boo ëllëgee bu ñu ko soxlaa ñu ñëw démonter avec des techniciens expérimentés mhm. ñu continuer seen liggéey mais duñ ko bàyyi noonu xool xale yi ay booy yu ndaw dem fi booy bi gaañu boo demee xale yi dañ la fekk kii xamul courant mhm. xamul courant booy bi bi ko courant fi mais ñoom li wax jàpp na ne sax day comité ndax courant moo mel noonu jàppee yow mi jàpp yaa mën xam ni courant jàpp na mais ñi nga àndal fii ak faatuwoo duñ xam ni courant jàpp na la loolu daal moo nekk li nga xam ni mm-hmm. moom lañ ci jàllale waaw non xale bi moom xale bu xale bu modeste la mm-hmm. xale bu am jom bu nangoo liggéey mm-hmm. man miinante ñu lool lool lool wallaahi ndax damay wax sama axulaay taala mais ñëw na sunu kër fan yee di def liggéey mbuus après bi mu commencé liggéey benn instant gisatuma ko doon naa ko laajte sax mais daaw ju sunu kër démb avant muy faatu ñëw na kër ga ànd ak sama benn jarbaat Cheikh Mbeng mhm. barki démb ci guddi deux heures du matin man ak ñoom ñoo toog mhm. ndax ma man benn réception ba am foofu booy nekk foofu man ma dugg ci néeg mu daan tàng mhm. ma ne xaaral ma génn toog ci ñoom ñu laa loolu laa xam ci moom jàmbaar la information koo xamante ne bi nga information bi man bi ma ko déggee kër ga laa génne rek ñëw ñu expliqué ma mais ma dama absenté ndax xaw ma booy bi kan la fii laa ñëw yaakaar naa kii soo gi moom wan photom mhm. bi ma ne photo bi rek sama àdduna jëpp dafa tukki mhm. ndax affaire bi bette na mhm. jigéen a ca soriante wul baneen bi ci topp côté hôpital man jàpp naa ni autopsie bu fekkee doomu adama dafa génn àdduna ñu xam ne lii moo ko rey jaru ñu koy tardeel di ko autopsie man loolu sama avis personnel la jànguma santé jànguma droit mais jaru ko tey ñi préparé woon nañ jël ay pour dem Touba yóbbu ko mm-hmm. pour def sarax beeg yëpp mais mënuñu ko woote nan man ni may waxee nii yow nii nii mm-hmm. woo naa ki nga xam ne moo yore margo bi nekk fële CTO direct mm-hmm. ki yore xale bi bi ma ko wooyee ni ko dafa doon am fa benn élément mu ni ma nu mu tudd ma ne ko Bamba mu ni ma Ahmadou Ndiaye man ko Ahmadou Ndiaye bien sûr mu ma suba bu ngeen ñëwee di ngeen ci mën a jot ci huit ñëw leen mais procédure bi dafa metti mais boobaak léegi lan moo ciy taxawaayu léegi taxawaayu maire daal man xam nga bëgguma di wax lu ma wóorul waaye li ma fa gis daal dégg naa ñëw nañ fi jox nañ fi xaalis mhm. te xaalis moom yaakaar naa ni booy démb rek li ñu li fi maire joxe li mhm. booy collecté ko ëpp uh-huh. xam nga bakkan moo gën a foor xaalis mhm. nit moo mën a liggéey xaalis mais xaalis mënul liggéey nit ki ki dem mënuñu koo dabu mënul tu ñëw mënul ñëwaat kooku c'est c'est fini ca booy bi soutien de famille woon soutien de famille la woon ah, mu taaw xam nga non c'est vraiment